beneen actu du jour ami internet yu 24 actu yi bàkk ba jibati nañu doore kooka Abdoulaye Wilane di député maire bu Kaffrine daal dinay xamle ne élection présidentielle yi ñu dëjmal ñu war koo amal ci 2024 bile moom Wilane naka nee na parti PS dinañ am seen propre candidat ci élection yooyu lee buñ sukkandikoo rek ci ëtt yëglekaay boobule di Walf Quotidien ñu wéy ni ba tey benn responsable politique bu Benno Bokk Yaakaar moo amee xol bu jeex loola ginnaaw bi mu yëgee ne sàkku rakkam bu jigéen waaye atam tollu si fukki at ak ñeent moom responsable politique lee bi ko ko magam bu jigéen waxee nee na bëggul woon lenn lu dul faatu daal bëgg yóbbu yëfi si yoon waaye waajuram bu góor boobu nekk imam nekkit notable bu mag ca village ba moo ci antuwul benn yoon mu def milimil moom responsable bi naka daal nay xamle ne seen waajur bu jigéen bi mu dëddoo ba léegi moo yore xale bu jigéen boobule buñ sukkandikoo rek ci ëttu jéglekaay boobule di source a moo xamle yooyu les informations beneen xew-xew bu metti la askan way yeewoo ca diwaanu Louga ca quartier ba ñuy wax Touba Seras di dundu jamono ji benn xale bu góor buy wuyoo ci turu Jibi Sow mu am lu toll si fukki at ak juróom moo faatu ci ab fosse perdue yëf yi nag mi ngi am ndiki samedi yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci auto bi ñu nekk bi ay 3 heures jotee ndikki nag ci ay taw yu métti ñuy nemmeeku ci ay bés gi ñu weesu askan wa jaaxle lool ngir yëf yi nag daal di amaat ci seen gox boobule ginnaaw bi ONAS defee fausse peur di ñu di ci versé ay ndox. ci la yëf yi naka daal di amee moom Djiby Sèye daal di ñàkk bakkanam ci ab foos askan wa nag jaaxle lool ngir ragalaat yëf yi daal di amaat ci seen gox boobu boobulee ñu wéyandi ba tey bi la yoon nag ci ñàng mekk ñàngala mi la ñuy daal di jubali ndongo yay def technique door nañ nag seen jongante bu njëkk ci diplôme universitaire bu njëkk ndiki tey ci altine ji yamoo ko fanweeri fan ak benn ci août bi ñu nekk xayma nañ nag lu toll si ñetti junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay ndaw yu war a def bi jongante lu toll ci ayu bës ci njàng meeg njàngale mii la ñuy dese ni benn candidat BFEM bu ay atam si fukki at ak ñeent war a def BFEM ci at mi moom la yoon teg loxo daal di koy defeere ndax lan dafa violé benn cousinam bu am lu toll si juróom-ñetti démb yëf yi naka mi ngi xewee naka fële ca Daara Jolof ñu daal di wax ci leneen ñu gis ki nga xamante ni nii naka moo di Sanex nekk naka acteur théâtral fële ca groupe Soleil Levant moo daal di takk naka ñaareel ñu di ko ñaanal naka sëy bu barkeel njaboot gu barkeel lépp loo xamante ne mën na ko ca boobule sëy suñu borom nag defal ko ko ñu daal di ko jeexalee ak tiis mu méttee métti mu daal di wàcc général Babacar Wade ancien directeur général de l'hôpital principal bu Ndakaaru moo faatu niki tey ci altine ji mu sukkandikoo rek nag ci ëttu yëglekaay boobu leen di Dakar Actu levée du corps ba dinañ ko amal suba ci talaata ji bu ay 12 jotee maanaam midi ca hôpitalu principal li rek moo furi sondi woon ami internet yi dig daje lay doon ba ëllëg ak jàmm.